sunu waxtaan tey dañ koo ubbee ci xamle lan mooy Sonatel ba noppi ndax coow li bëri na manifestation dana am ñu wax ne yan ñooy intérêt étranger yi ñu limaale ci Sonatel loolu su amee nag ñun dañoo jàpp ne am nañ ci responsabilité responsabilité bi ci njëkk mooy xamlewuñu suñu bopp kon wala boog ni ñu war a doxee lañ doxewul Sonatel turam ci boppam soo ko doon firi soo bi mooy société ENA bi mooy national tel bi mooy des télécommunications loolu jàpp naa ne firi na lépp Sonatel mooy société nationale des télécommunications du Sénégal état du Sénégal nag moom ko mu dox ba les années 1990 banque mondiale ak FMI teg pression suñuy état yépp Afrique ne leen da ngeen war a privatiser seeni société nationale ci loolu heureusement que le pouvoir socialiste visionnaire mais aussi ñu amoon ay directeurs généraux yoo xam ne i tamit patriote ne ëpp na une société de télécommunication ñu koy jaay donc lan mooy solution bi ñu ne nañu ubbi capital bi moom mooy dañ def bay seddoo xawma kan ndax xam ngeen lan mooy bay seddoo kon ñu nag Orange li ñu boole mooy bay seddoo mooy dañ leen wax ne ñëw leen ñu bokk dajale suñu liggéey ba noppi ku nekk jël sa wàll waaye nag kenn yiliful kenn ñu koy wax ci tubaab partenariat kon Orange ba jamono ji ñuy wax ni du moom moom moom Sonatel c'est pas l'actionnaire majoritaire waaye nag li ñu seetlu mooy <coughs> loi di créé Sonatel réglé na problème bi waaye yemu ci sax état du Sénégal ak Orange dafa am pacte d'actionnariat bu leen lié pacte d'actionnariat loolu li muy firi mooy Macky Sall mën naa yeew ne bés ni ki tey Orange na ñibbi Orange dafay ñibbi du ci teg baat kon su demee ba Sénégalais yi gis lu leen naqadi ci doxinu sonaateel ak Orange ki ñu ko war a njëkk laaj mooy Macky Sall ndax moo doxut ni mu war a dox ñi ñu war a njëkk interpellé mooy l'état du Sénégal travailleurs yi rek moo wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama ndax mën nañoo wax ne c'est le seul socle ki est resté pendant des dizaines d'années à se battre pour que Sonatel des nekk une société sénégalaise bi fii Ablaye Wade bëggee jaay 9 pour cent du capital à Orange pour ñu am une majorité nga xam ne amatul waxtaan ñoom ñoo moom travailleurs yi ñoo génn ci mbedd bi xeex ko ba état bi dellu gannaaw waaye nag ñu delloo ci njukkal aussi un DG comme ni ko Assirou waxee muy Cheikh Tidiane mbay mu amoon courage tamit taxaw ànd ak travailleurs yi ci xeex ko waaye bi ñu demee ba jëmm jamono Orange ne léegi comme que mënatuma moom léegi réseau bi ci boppam laay jël askanale sam bopp État du Sénégal yëg yëkkatiwut le petit le tout le plus petit doigt c'est les travailleurs ci sont levés ngeen baal ma wolof bi xam naa dafa jaxasoo ak français bi travailleurs yi ñoo jóg xeex ne loolu du fi am ba mujj bi GNOC bi ñëw nekk Sénégal te fekk ne c'était loolu kenn prévoir ko woon ci plan yu njëkk yi kon liggéeykatu Sonatel ay patriotes lañ ñu bëgg seen réew lañ waaye dafa mel ni bi ñuy xeex loolu kenn dégguñu wala boog dana am sénégalais boo xam ne dafay wax ne gars yi seen oto yu rafeteeg seen costume yi ñii daal jàpp naa ne fi mu nekk di sax bokkatuñ ci réew mi waaye tey lan moo xew mooy lañ doon xeex dafa raam raam raam ba ak ci tey ci këru sénégalais bu nekk ba client yi tey soo leen déggee ku nekk mu ngi njax ni travailleurs yi doon xeex ne lii ñoo ko moom nañ ko sàmm tey sénégalais bi dem na ba yëg ne moom Sonatel ni muy doxee de neexu ko loolu la wax ne ñun en tant que travail dana jar nag ñu taxaw wax ak réew mi wax ak njiitu réew mi wax ak état bi wax ak ñi leen teewal ci conseil d'administration Sonatel Sonatel moomu tey suñ koy xool symbole pan panafricanisme la ndax mooy benn société boo xam ne ay nit ñu ñuul ñoo ko moom mu nekk Mali nekk euh, Guinée nekk Bissau nekk Sierra woon nekk aussi une société benn société africaine boo xam ne dafay def plus d'un milliard de chiffre d'affaires d'euros deux milliards en fait deux milliards d'euros de chiffre d'affaires loolu dañ koy lim ci Afrique kon suñ ko amee war nañ koo mën a sàmm bu baax a baax ba sénégalais bi dana ci gis boppam liggéeykat bi dana ci gis boppam waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ci dugal seen xaalis bañal ñu leen ko orange war na cee gis boppam waaye nag waru cee wéet moom kese di gis boppam yeneen wàll ya ca des bañ cee gis seen bopp loolu ñàkk maandu lay doon moo tax tey lim jur moom mooy ay clients yuy ñaxtu ak liggéeykat yu mer bu fut pourtant ci atum mille 2019 direction Sonatel bu bees bi daf ñoo jaay ne moom li ko yitteel mooy client yi li ko yitteel moom mooy client bu am satisfaction client bu bëgg ñu ànd ceeg moom nag am ci kontante ndax dañoo gëm ne suñu liggéeyee kenn rek moo ñu mën a wax jaajëf mu sedd suñuy xol gannaaw la ñuy yóbbu suñu askan lu ñuy yóbbu suñu kër ngir suturloo ko mooy ki tax ngay xëy muy client bi su la nee waa waaw góor jaajëf kontaan naa ci yow danga am faj waaye bés boo génnee ñu ne leen yéen yaa leen nangam ak nangam wane mer wax dëgg yàlla danga nga am euh, lu lu ñoŋ-ñoŋ sa xel sa xol. waaye nag loolu la muy wane moom mooy wax moo gën a yomb jëf tey li ñu gis moom mooy direction Sonatel lenn rek ku ko yitteel. mooy li neex Orange ak li neex état du Sénégal actionnaire loolu rekk ko yitteel Orange lan moo ko neex moom mooy la may fayeeku ci dividende na yokk bu fekkee da ngay yokk sax la client yi di fay yokkal waaye man la may fayeeku na yokk bu fekkee da ngay wàññi li travailleurs yi di am wàññil waaye man la may am na yokk tey bés nit ki tey ñu wax ko ñëpp dégg ko lii mooy taxawaayu direction général bi nga xam ne Sékou Dramé ko jiite loolu nag ñun duñ ci ànd moo tax ñu ne na ñëpp doy ñu seede ne liggéeykatu Sonatel yi de ànduñu ci capitalisme boo xam ne golo mooy béy baabu di dunde loolu ànduñu ci waaye tamit ñu ngi naqarlu ak di wane sunu dogu ngir xeex ay sénégalais jàng ba yëy seeni diplôme ñëw Sonatel di leen di fay ay salaires yoo xam ne mënta faj gàcc mënta faj lenn ay salaires yu ñàkk fayda te fekk ne Sonatel tey mu ngi def ay milliards u bénéfice loolu mënuñu ci am ñu ngi woo direction wu Sonatel ne ko na gën a am ñeew ñeewantal na gën a am laa biir jëme ci client yi na góor góorgóorlu ba client yi kóolute bi war a dox diggante digganteeg ñoom kóolute boobu dellu ci ñu gën koo dëgëral ba mu doon loo xam ne du ñu dégg duñu gis ay client yoo xam ne yuy ñaxtu lañuy doon wala yuy am lu leen di métti. ñu ngi yuuxu ci kaw nag ngir ñu dégguñu na direction générale xam ne Sékou Dramé na xam ne conseil d'administration bi tamit na yëg ne su soobee suñu boroom su soobee suñu borom liggéeykat yi duñ mus a nekk variable d'ajustement mooy duñ nekk ñoo xam ne dañ leen di dëggati ngir àgg ci lañ bëgg duñ nangu kenn dëggatuñ ku ñu dëggati yi tamit da nga yëg ne am na loo dëggati ñu ngi wax ne di tëjee foofu wax bi mooy sunu dogg dafa tàmbali te fas yéene wut dellu gannaaw ne ñu xeex danañu xeex ci anam bu mu munti doon ngir lii nga xam ne moom mooy li jaadu mooy bés bu ñu liggéeyee ba ñu ne Sonatel am na bénéfice client bi na ci gis boppam liggéeykat bi na ci gis boppam actionnaire yi tamit dañ ci gis seen bopp waaye na ci ñëpp gis seen bopp li ñëpp bokk na ko ñëpp bokk jëriñu kon foofu lañuy ñuy tëjee suñu kàddu di leen jaajëfal